jërë ngeen jëf milliards yu bari yi ñuy dugal ci wàll wér géram gi te terewul tey la secteur bi gën a wéradi moo waral l'observateur xëy di wër fan la xaalis ba dugg ubbil yéene kay bi mi ngi ñuy wax ne at mu yàlla sàkk budget bi ñu jagleel santé ci réewum Sénégal dafay gën di yokk 2020 mi ngi woon ci 191 milliards 714 millions 2023 mu dem ba ci 272 milliards dégg nañu waa ministère des finances ñu ne politique d'investissement public bi état bi def tax na ba suñum réew 300 postes de santé ak ñaar fukki centre de dialyse ak benn waaye loolee lépp terewul réew mi ku fi feebar ñàkk pexe lay tax a dem l'hôpital ndax boo woppee ba dem l'hôpital naan yaa ngay faju la nga fay dund doo ko niti li kenn Cheikh Seck mi jiite syndicat démocratique des de la santé et du secteur social nii ci l'observateur li waral jafe-jafe yi ci santé bi mooy xaalis bu bari bañ ci investir dañu ko dugalul ci farata firnde li Cheikh Seck ne mooy ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff bi bu ci war a dem traumatologie mën nga xaar lu mat ñaar fukki fan laata ñu lay opérer ndax ñàkk ay ak matériel doy Seck nee na ñu booy na noppi ñu bari ñeneen ñu joxe seen xalaat ci l'observateur ci wéradi gi gi yaramu réew mi wéradi ñooy colonel Babacar di spécialiste ci wàllu santé publique ak docteur Mamadou Demba li ñu gis mooy xaalis bu bari bi ñuy investir ci santé bi demul fa mu war a dem ñu dem ca Saloum seeti président de la République Macky Sall ma dem ca Kaolack Sud Quotidien nañu teewee na fa démb ab conseil présidentiel bu ñu doon waxtaanee développement d'investissement prioritaire ci diggante ak 2026 wàllu tali yeeg wàllu bi nee nañu bokk na ci ñuy gën bàyyi xel ci programme bi réew mi quotidien nañu njiit réew mi li mu bëgg mooy fexe ba Kaolack am taxawaay bu am solo ci koom-koomu Sénégal moo waral bu weesoo 232 ak yu teg yi ñu dugal ci dëkk ba ci diggante ak président de la république diggée na fa démb yeneen 1000 diggante ak 2026 le mi bind ne milliards yaa ngay taw ca Kaolack ni démb journal laay foo jàppee ko ab biso bu ñu tëgg ba mu jekk jagleel ko ndawi réew mi maison de la jeunesse yi ci réew mi l'observateur li mu ci gis mooy vision ba ca président Macky amoon ba tax mu tegoon projet bi ministre de la jeunesse di Pape Malick Ndour jëmmal na ko moom ci jëmi boppam di Pape Malick Ndour l'observateur ne nañu wax na démb ne laata at mi di jeex danañu jébbal président Macky ñaar fukki maison de la jeunesse ak juróom-benn yi ñu yëkkate université bu Sine Saloum ñu doon wër fu nekk doon ko fa joytu ministre de la jeunesse bi yeggee na doléance yi président Macky Sall ba président ne dinañ leen jox 150 li des ñu seet ni ñu ko lijjante 600 yi ñu war a tabax aéroport bu Kaolack bi ñe ko moom njiit réew mi nee na ñoo ñitt danañu seet ni ñu saafara seeni tawet bu weesoo fa daloog yemu fa diggee l'observateur ñëwaan ak ñun ci teeru bu rëy bi ñu ko teeru ca Kaolack moom président ma mobilisation moom Sonko mi tëdd feebar bu yàgg ba léegi journal bi ne nañu ma ngay amuktaan gis nañu ko ca lal muy liir ak di bind ak di waxtaan ak ki ñoñam moo ki ñoñam journal Tribune mi ngi ñuy wax ne bésub suba bi di àjjuma fukki fan ak novembre bés la bu am solo ci ñoom ndax ci la cour de justice bu CEDEAO war a joxe wérdikam ci li fa avocat mi demoon kalaame ji àjjumay suba jiit Walf Quotidien nee nañu du yomb ci Macky Sall lay doon ci moom ndax ñoo nga cey déglu dogalub cour de justice bu CEDEAO bi boole cekkit am na ñu nësër ay manifester ci dëkk bi ci jamono jooju point actu mi ngi ñuy xibaar ne am na lu toll ci juróom-ñetti fukki personnalité ak ñeent yu def ab document ba signé ko liñ ci jublu mooy xeex ba ñu gën a respecté état de droit ci réew mi vox populi di ko dëggal ci xët njëkk ci xët mu njëkk ay xibaar yu ñeel kii di oustaz Omar Sall mi ñu war a defeere tey ji journal bi nañu collectif international gi ëmb ay taalibe cheikh ñoo ko porté di ko toppee ay ak i sos ndax nee nañu dafa wax wax ju rafetul jëmee ko ci tarixa tijaan